kuréel lu garaaw la def. Mhm. ba bi commencé dañ ko oo maa ngi yor sama goon. ci tànk yi laay dóor ak goon. la ko waxee te nii la amee ah. daa ko jëm waa Égypte de ah. sama kër di leen tiir tiir tiir. defee. di leen ko dóor. <laughs> Ah. boobu boobu. la boobu goon la ak gon bee jóg. góor bi sa relation yaa njole lan lan la yaa njole avant ak góor bi la wala. njole miinu ko. xam naa ko waaye miinu ma ko. gisante nañu Atlanta. moment yi muy ñëw Las Vegas di seet si Mo Gates. man maa ngi woon Dakar. ci mbas mi. mais ba lii amee woowu ma de. Ah, man maa woo Njole. ne ko waa Njole. fi nga génn. <laughs> mun naa ma ko xamal ma doon woowee. pour nga xam ne Ndiolé réglé wu. Mhm. Euh, Ramama. <laughs> pourtant moom Ramama ki xarit. ni ma ni ma ko defee nii beng mhm. beng bi suba mu génnati. Mhm. li ci des dama koy denc. waaw mi mbay laay woo. lu ma wax duma ca dellu xam nga wax rek laay def. ah ba du ko def yu yu am boobu lu ma wax duma ci delluwaat. non yow. léegi ak góor bi la ñuy njëkk a bëgg. ak góor bi nu mu duggee ci xolu sénégalais mun nañoo xaar a beng. waaw dañuy xaar a beng. a beng beng. dañ koy xaar. a <laughs> ah. dañuy xaar beng bi. beng bi. Mhm. ok beng beng bi lan la xam nga ak góor bi xam nañu. xam nga euh, américain yi. Mhm. bu ñuy tiire goon dañuy wax beng beng beng. xale ba dafa wax ak man wax bu rëy. Mhm. ni ma ilimaanu duma ko mës a bàyyi mhm. ilimaanu euh, jàkkay euh, Sacré Cœur bi mhm. nee na yow Coura Macky booy dox dorogay nekk sa saak ak sàngara mhm. du yoon ma ne ko ndax for real da nga bëgg a xam li nekk sama baag bi waxul benn dëgg mais man li may wax dëgg la ak gan moo nekk ci sama baag pistol xaadim la xaadim xam nga des fois nit dina jël pour tuutal la wara pour yàq la uh-huh. mujjee tuuti mu jiyee tuuti mm-hmm. Mm-hmm. yow nag yàlla ñoŋal la ca. Mm-hmm. ah moom intention wàcceele la jëloon quoi. waaw ndax wax bu rëy boobu. naka nga koy waxee. kilifa ak ku ak ak ak ak ku xam li muy wax. ak ku tekki ci réew mi. ku yor njabootam yi teg leen macha allah fi ñu war a toog. kuy drogué woo. nga dem Amérique di ñëw di indi ay conteneur ci dëkk bi. danga koy tal kuy dorogeewu daara yi dinañ la xam ak kër kilifa diine yi di nga ko tal mm. ñu wax ma wax bu rëy boobu ma wax leen dëgg ñoom dañuy kàcc mm-hmm. man ma wax dëgg man damay doxee pistolet dëgg la mm-hmm. mais Coura ci biir wax ji euh, da nga ne ak gun is my choice maanaam yow gun sa yëf la pourquoi nga bëgg arme bi nga choisir arme parce que dama jàpp ni États-Unis li mu bari woon ay ay ay ay ay rayanteeg loolu est-ce que loolu la tiital nga ne da ngay wut pistolet ku la balaa ñi di la gaañ nga gaañ ko. non Amérique. Mhm. ngeen jëf ab détournement bu amoon fële sa port autonome de Dakar ab bato bu yeboon ba mu fees dell ki engrais boo koy xayma si suñu koppa mi ngi toll si ñetti milliards et quelque bato boobulee bu fekkoon ab film la nee nañ ki nga xam ne mooy Ndeye Nassinya mooy actrice principale bi. ginnaaw ba ñu ko jiiñee ab actrice principale si boobu leen luumal moom naa si Niang kon nee na dana lim acteurs yi ku si mel ne Aziz Aly bokk na si boobu leen luubal Aly Ndiaye di rakk si Aziz Aly Ndiaye bokk si boobu leen luubal Massata Ndiaye di rakk si Aziz Aly Ndiaye bopp bokk si boobu leen luubal waaye film boo gis rek dana am ay figurant ndax Aliou Diouf Lambaye lim ñu ko si luubal boobule Arona Ba ñu lim ko si boobu boobule gars yi jàpp ne ñii ñu fi lim léegi Aziz Aly Ndiaye Aly Ndiaye Massata Ndiaye Aliou Diouf Lambaye Arona Ba ñoo ñee ñoo si nga xamee ne boobee les feesoon dell ak engrais boo koy xayma nag ci suñu koppar comme ni ma ko waxee woon dana toll ci ñett milliards suñu koppar damay jugee port autonome de Dakar jaaree noonu Colobane dugub biir maris ubbil yéenekaay yi ki nga xam ne mooy soxna Awa Fall di ab seetkat bu mag fii si réewu Sénégal jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Tima fële sa DS Média soxna Awa Fall di xam ne kii di Wally Ballago sekk dafa yor ab raw xante ku ko moytu dana la sànk soxna Awa Fall di xam ne ne kii di Wally Ballago Seck dafa ànd ak ay jinne yoo xam ne képp ku koy fexal wala di ko yéene lu bon da ngay sànku keneen ki nga xam ne nar naa sànku di woyoo si kilifa rappeur kilifa rappeur liñ ko xamal lenn képp la mooy kii di soxna aw faal nee na bu bàyyiw lu muy def may na ko ñett fan sinon lu mu gis rek moom la